résumé depuis le 2 mars Covid 19 nekk au Sénégal euh, cas yi di gën di yokku am benn moment boo xam ne dañuy am une tendance baissière bu jógee ci tendance baissière boobu tout le temps bu ñu jógee ci tendance baissière dañuy am hausse boo xam ne en tout cas day indi tii euh, tiitange en tout cas ci population yi euh, tey jii nii euh, boo amee benn message de sensibilisation yow mi nga xam ne yaa teewal askan bi à l'Assemblée nationale lan lay doon une recommandation par rapport aux autorités mais par rapport aux populations aussi li ma jàpp comme recommandation. Mhm. mooy il faut que ñu xam ne. Mhm. feebar bi. Mhm. du du ay fo. du ay caaxaan. du itam ay wax rek moo ko fiy jëlee. jëf moo ko fiy jële mais jëf bu dëggu. il faudrait que citoyenneté parce que fii man j'en appelle à la citoyenneté de tout un chacun. il faut que ñu xam ne ni ko Serigne Mountakha defee man de personnellement damay politique. mais dama ko naw lool parce que depuis le début doo ko gis te takkul masque donc il faut nekk suñu kër yi suñu cellule familiale ñun dañu dem seeti ko mhm. parce que bi màggal bi amee dañoo dem jàppale leen bi loolu weesoo ñu dem seeti ko mu waxtaan ak ñun ne rafetlu na ñun liggéey bi ñu def mhm. parce que bi génnee xaalis jotee bokk na si ñu njëkk génnee xaalisam bokk na ñu njëkk ñàkk njabootam bokk na si ñi njëkk te d'ailleurs si tabaski bi rek defaat na fàttali boobu. Mhm. il faut que ñun ñëpp sénégalais yëpp. ñu ngay baykat ngay commercant ngay journaliste ngay médecin. Mhm. aspect citoyenneté boobu sànq yaa ngi koy wax gis nañ police muy joxe ay masques et cetera ñun dès le début Ibrahima nu mu ko waxee dëgg la on l'a compris. Mhm. moo tax ngay dégg un médecin communautaire un professeur un médecin communautaire un médecin citoyen un journaliste citoyen un député citoyen un étudiant citoyen mhm. si sunu biir cet aspect de citoyenneté def si fës parce que mënoo boo soxlawee marche mhm. ñu garantir la sa liberté mhm. parce que mënoo boo bëggee dem dikk ñu garantir la te bu sa réew soxlawee nga ne non non man sama yoon nekku si je pense que là où on mooy xëy na njiit kenn du ko yedd mais président bi muy woo classe politique bi porte de voix yeeg yëpp daf leen a waroon jox ay mission mu ne tey par exemple Ousmane ko dalal naa la ñaax naa la lii si mission comme Covid yow lii mhm. ñaax naa la yow Haj Mansour Mbaye lii laa la sant ci communiqué mais pas que ñu dem palais rek pas que ñu groupe ñun ñëpp dem ministère de la santé ñun au sein du révocable bi ñu ko tegee on s'est du ñu dem ministère de la santé mhm. du ñu def dara mais nañ def liggéey boo nga xamante ne après ministère de la santé ñun bu ñu demee di ko seet dinañ ko ne pendant la Covid ñun kat bi ñu déggee orientation stratégique voici ce qu'on a fait mais on est dans la campagne de vaccination mais on se doute même euh, on doute même s'il y a une stratégie derrière mhm. gis nañ léegi les prises en charge à domicile les médecins sont débordés il faudrait qu'on implique ñu si mel ni des socio-anthropologues il faudrait que tey président moi je pense que ne il faudrait même il faudrait mhm. même pas que ñu naan rek il faut que ministère de la santé gère président si boppam mhm. moom mi nga xam ne moom lañ jox réew mi na dem woote conseil présidentiel sur la santé sur la troisième vague pour que les Sénégalais Euh, scientifique yi joxaat ko ay orientation ministère de la santé joxaat ko c'est important honorable temps bi moo jeex euh, nga jeexal rek waaw euh, déjà li ñu koy mm-hmm. waxee mooy mm-hmm. gërëm leen mm-hmm. et joxe ay recommandation ni ñu ko waxee vaccin bi nañ ko rendre mu disponible benn ni ñu gën a renforcer suñu personnel sanitaire bi jox leen ay masque ay gel oxygène